Thank you. dégg ngeen loolu ah toj toj bu bees ah gaa ñi avance ca arrêt ba gaa ñi kon nag defe naa tey ku fa dem ne gis lu bees ah waaw tey te sama gaa ñi waaw gaa ñi gaaw ku ci yéex ñaar ne dama ne tey saa kajoor galangoo ne te kana nga laa gaañ tey ma toj toj bu bees tey avance arrêt car El Mali ah boo xam ne loo ca laaj ca bàtt man fa nga ne tey gaawul gaaw saa waa ji ɓe anndare toy sona gañani fa ey ñoyin seeha toy a kay arrête yo sofa yo baɗama man cheikh bambara dootuma la yóbbu jamais laa wax kel ko mag la yóbbu yaa ngi wàccu laaxa bu tàgga jëri suma biir woto ko xuduma ko nangu laa wax gaañi kon nag defe naa toj toj bu bees ah coy ndel bi gën a yar kaar ndata nar na nga ne coy gis ma ca jëm nag ba sax def ci woo ci gune yi nga ne et eh, sama karaay s'il te la bëgg a laaj rek man la aussi quoi poj <laughs> poj bu bees nga ne <laughs> waaw grand dame defal naa ko suprématie ada bu ko jeexal nga ne ah waaw poj poj bu bees ah <laughs> nga ne tey Cheikh dama ne Cheikh tuufa toogal Cheikh bàyyil tuufa jëlee tey Cheikh bu weex nga ne ah teew sax bàyyi ngaaña ah eh sax ngaaña nga ne ma sax ngaaña bugu jëri nga yëngal sax ngaaña toogal sax ngaaña bugu jëri nga yëngal sax purtu toogal sax purtu bugu jëri nga yëngal ah waaw waaw lii kat tey mu neex ku déglu di nga dégg